jërë ngeen jëf mbokk yi dal leen ak jàmm ci wasaare lamb ci xibaari lamb li a fës nga xam ne bind nañ ko ci moom ci site internet yi daal fësal ab nataalam xam le ne moom soq dañu ko jàpp police ba daal koy defeere loolee bokk ci li ko naqari ba mu xëy amal conférence de presse am nañu beneen am ndaje boo xam ne amal nañu ko foofee digganteem moom soq Pape ak mobile 2 ngir daal jàppale ki nga xam ne moom mooy koy Malika ci feebaram boobee mu nekkee naka noone it euh, pël bu rafet nekk foofee ca Bawol TV moom am na lu ko naqari lool ci ministre des sports Matar Ba ba tax na mu yëkkati ay kàddu daal di koy tàbbal ci micro ji li Kébé waaye aussi danañ dem ci ki nga xamante nii moom mooy Boucar Ndour nekk foofee ca Lit TV ci mbind mi nga xam ne bindal na nañu ko soq am na lenn loo xam ne da dafa daal di ruus ci Lit TV loolee nag waral mu indi ay leeral mbokk yi lii moo nekk li gën a fës xibaar yi bu bàkk bi daanoo ñëw leen ci yaatal yi comme ni ñu leen ko waxee mbokk yi ci bopp xibaar yi tey talaata yee mbokk fukki fan ak ñaar ci weeru janvier 2021 foofee ca centre socioculturel ba nekk ca Pikine ca la doon amale conférence de presse am moom soq li ko naqari nag bokk na ci ay site internet yu bari yu xëy bind ne soq dañu ko jàpp police ba defeere nañu ko loolu bokk ci li ko metti ba mu woote ab ndaje ngir leeral li nga xamante ni moom moo xew foofee dañuy dem déglu ji ko ci micro Djily Kébé di wax nag tey li ñu fi dajale ay mbir la yu am solo yu am solo solo sax waaw ndax tey dama toog xëy gis ñu dugal soq ci sit internet yeeg fu nekk comprendre nga di expliquer soq arrêté par la police déféré nañ ko te pour man <clears throat> loolu rafetul quoi rafetlu ma ko dara dara dara dara wax dëgg fa neex yàlla parce que tey ñi ko def laay blâmer ñi ko dugal parce que tey yéen yéen a làmb yéen yéenay médiaawul làmb yéen làmb tax ngeen di liggéey tey bu dul làmb mun ngeen dem liggéey leneen mais bu ñu leen reconnaître si làmb lañ leen reconnaître comprendre nga te dama koy gis souvent buñ nee teel rek yéen médiawu làmb yéenay njëkk a dugal ay information yoo xam ni dara leeru ci te loolu warul rafetlu wu ma ko parce que tey ñun ñëpp benn lañ tey kum ci doonoon sa freer doo ko jàpp di ko dugal ci ay média bu dul dara yéen ñëpp xam ngeen ma yéen a ngi sama numéro dangeen may soxla di ma woo ci lu nekk ma leen ci wuy si ñuy liggéey te musuma cee ñàkkal fayda kenn musuma see chantage kenn heure boo leen ma wooyee ma wuy leen heure boo leen ma soxla interview dama leen koy yombal ngeen ñëw ñu def ko mu jeex ngeen dem ma dem kon boo leen déggee dara ni tell war ngeen a mën a yëkkati seen téléphone ngeen woo ma balaa ngeen def dara su ci mel ni waa Lutte ay jàmbaar ngeen ay liggéeykat ngeen tey da ngeen a marqué seen i empreinte nekkoo leen site bu ndaw loo leen dugal monde entier ñëpp koy gis kon war na balaa ngeen di dugal dara da ngeen ko war a xool xoolaat ko parce que yéen Lutte TV lañ leen di woowe woowewuñ leen leneen lu dul Lutte TV mbooleem site internet yi bind ñaawteef boobu jëmale ko ci soq mën nañ tey jàpp suñu confrères yi nga xam ne nii ñoom ñooy Lutte TV tax na nag Boucar Ndour nga xam ne reporter la fare ci boobu site daal di yëkkati ay kàddoom leeral mbir ma naka la demee ak lan moo wund boobu bind dañuy dem déglu ji Boucar Ndour ci micro ji liggéey bi. xam nga nag maanaam liggéey dafa nekk loo xamante ni tey dafa doy waar des fois day am ay imprévu mais tey man nee maanaam ni ma ko ko waxee rek téléphone waxaat ko ko fii nii maanaam moom buñ ko gëmloo ko ne dafa am noon tey kenn mënu ko parce que tey lépp lu fi information tey si presse la mën a jaar tey lépp luy xew wala muy nekk jàmm wala safaan tey si presse la mën a jaar kon maanaam tey bu bu kenn nangu rek ñu lay wutal noonu rawatina nag di ko jaarale wala ñu koy def presse parce que tey Lutte TV wala ba si wasaare am na site yu bëri yoo tey dañuy am page YouTube mais dañuy am site internet boo xamante tey dañ fay information am page Facebook di fa information tey nag ñu am koo xamante ni tey xëy moo nekk suñu rédacteur di bind ay article man mi di daanaa temps may bind article mais tey des dañuy jël ay article suñu làmb di ko dugalaat tey boo seetloo tey ay article wasaare sax suñu yaakaar luy dégager euh, responsabilité site bi ak ki koy bind kon loolu yaakaar naa lu mat a bàyyi xel la boo porté woon plainte sax tey ki joxe information joxe source am rek libéré wu si lu bëree bëri bëri te loolu ñu bëri duñ ko xam moo tax tey bi mu déggantee téléphone dama ko ne bu la nangu ñi mettre la en mal ak ñi nga xamante ni moo di presse bi te yaakaar naa loolu mënul ñàkk si dundu star tey fake lañ koy bàyyi tey nit dina dégg dara te waaye booy bi bi muy bind euh, information bi bind na ko huit de temps wala dix heures de temps après li nga xamante ni mooy que ne site yu bëri jotoon nañ ko dugal te moom dafa tapé recherché gis site yu bëri dugal ko moo tax mu jàpp lu am la moo tax mu dugalaat ko. ñoo ko déggandoo Boucar Ndour moomee nekk reporter ci TV ay kàddoom ñu koy rafetlu bu baax baax ndax noonu la li wolof di wax rek ñi bokk teen ñooy laxasoo yi goj ndax mënul ñàkk ñi nekk ci liggéey bi saa su nekk ñoo ci yamal ay njuumte mu nekk njuumte loo xamante ni ñun ñëpp ñu ngi ciy jaar képp ku yor site internet rek di ci jaar di jéggalu mbër mi nga xamante ni moom mooy euh, soq naka noonee mbokk yi ca ndaje moom it daal di nañ cay waxtaanee waxtaan bu am solo mooy mbër moomee fekk baax ca Malika ñu gën koo xam ci booy Malika gannaaw feebaral bi ko daaneel nekk feebar bu méttee métti ñu jamoon ko benn balu muy dox ci yaramam yi ba léegi te amul euh, benn moyen bu ko mën a jàppale ba mu faju loolee nag soq taxaw na ci taxawaay bu am solo digganteem ak euh, Boy euh, Malika waaye aussi ki ñuy wax mobile de ak Pape Sarr ñoom ñëpp taxaw nañ ci dañuy dem déglu ci soq ci micro ji bi. tey Pape mi mii toog boo ko gisee maa ko yee ci lalam léegi léegi mobile bi ma ko wooyee léegi léegi léegi yàlla xam na daf ko fekk mu am lu mu doon def da ko bàyyi ni mu mbër su may naaw ci APS bi yegg si sax dinaa ko def parce que dama seetaan benn interview. bu booy Malika def ma toog tamit en tant que jullit ak doomu aadama ak moroomu doomu aadamaam mbër ak moroomu mbërëm tey man sama loxo jotul sama ginnaaw te li ko dal noonu mu tëdd jomb ma man soq te tey man mii sama loxo jotul sama ginnaaw bu ma daloon dinaa bëgg ndimbal su ma yoroon ay milliards tëdd ci su ma dalee mun naa jël ci sama milliards yooyu faju comprendre nga mais comme moom tey maag moom ñoo yem. suñu loxo jotul suñu ginnaaw ba tey mu dugg site internet bi def benn communication def benn interview boo xam ne man dama ko seetaan barki Seydina naa yeggalewu ma ko sama yaram dafa daw parce que bi mu nee woo naa diw woo diw mais dañoo filtrer sama numéro te bal bi yi may sentir muy dox sama biir xol bi ñi dee gënuma leen nañ ma bàyyi fu ma yàlla yemaleeg moom ma yem fa xam ni fii la ma yàlla yemale ndax ñi dee gënuma barki suñ Tuubaa yeggalewu ma interview bi foofee mbokk yi ba léegi fa la ñuy desandee génn ndax Pape Sarr mi nga xam ne ku ko xam-xam ko ci social gis nañ ko ci feebaru jibiama bi ak liggéey bu am solo ba mu ca liggéey gis nañ ko aussi ak euh, mbooleem ñi fi nekk ci réew mi te am ay tawat euh, ay jafe di ko ko diis ñu gis taxawaay bi mu fi taxaw moom it ba nu ko woowee ca ndaje ma daal di koy daal dina koy fekkee ba fësal ci euh, engagement ak naka la fas yéene def ba jàppale mbër moomee di booy Malika. wax dëgg yàlla léegi moom ci rek laa mun a dox waaw. avant lii mbuur laa jóge ci kase comme kii suñu dëkkandoo la suñu rakk la comme niñ ko defee ci jibi ba yàlla def li mu def nii maa ngi woowaat ñi jàppale woon jibi ne ñépp ñëw teg ci loxo booy Malika xam naa bu ñu jógee fii dinañu xam fan lañu di war a jaar ba dimbali ko képp koo xamante ne rek dimbali woon nga ma jaarale woon xaalis ci man dama buggaat nga dimbali suñu rakk ji booy Malika ñi ma ciy woo nag mooy Gambien yi ba pare Gambien yi ak association boo xamante ne tey mu ngi France Toldo jiite ko ak Libaas di frère si Mood ñoom ñoo jiite association boobu ak euh, Cheikhouna Si ñoom seen association boobu dañoo ubbi foofu benn caisse sociale boo xam ne 3000 personnes lañu ñooñu ci kaa yi rek la ñuy xaar. maa ngi leen di ñaan am na leneen lu xewaat muy lii liggéey amaan na amaan lii moom dama koy def suma liggéey su ma suñ jógee fii ñun ñëpp dinañ leen woo ba ci ndeyu mbill bi nii ñu ko defee nii muy man Sokh Mobile dinañu toogaat ba ci malaat bi ñu toog lépp luñ ciy def ñu décider loolu ak ay mbokkam maa ngi ciy woo ñëpp ñu ñëw jàppale ko képp koo xamante ne rek dimbalil nga ma jibi bii tey maa ngi lay ñaan ko tegaat loxo suñu rakk ji ba léegi rek mën nañ ne mbooleem ñiy def lu baax ñoom dañuy xamante seen biir loolee moo waral soq moom it gannaaw bi ñu jàppalee ki nga xam ne moom mooy Djiby Ama ba def ci seen jëf ju mucc ay loolee tax na mu convoqué waat wala woolu ki nga xam ne moom mooy mobile de ci liggéeyam ci jëfam ci lépp loo xamante ni da koy taxawu ay mbër yu nekk en difficulté wala sax ci réew mi ñoo xam ne dañoo nekk ci ay tolof tolof loolee moo waral teewaayu mobile de ñu déglu ko moom it ci micro ci li bi. ñu fi feebaru téeméeri boo demee seen dëj bi day 6 millions. ndax ku ñu fëggoon pour nga jàpp ci ordonnance bi nga tëj sa bunt bu dëj bi amee nga indi nagu si nagu 300000 léegi détail boobu noonu moo war a jeex ci làmb dégg naa ko ba ku ko posé question léegi soox naan ko association mbëri léeg léeg lii man li ci soox wax laa ci wax man maa ngi nii licence bi ñuy dagg ñoom ñi ne ñoo yor association yeeg lépp moom moom la ñuy dagg seen groupe WhatsApp boobu bokkoon naa ci. seen groupe WhatsApp boobu bokkoon naa ci man maa njëkk a taxaw ci groupe bi ne leen mbëri ñuy nekk di ketal ci télé bi. bu fi kenn di ŋàññi benn politicien wala benn kilifa ñun la 8000 licences ñoo am ci làmb ji 8000 licences licence bu nekk weer bu dee mbër bu nekk daa war a natt 1000 francs association bi nañ ko def un an ñu wax ñaata lay doon ci milliard 8000 licences chaque weer ku ne 1000 francs un an bu mbër bu nekk 12000 francs ngay joxe. maa ko njëkk a proposé bi ma ko proposé xam lañ wax 8000 licences yi ndax da mën a xam boo woowee Max Mbargane ne ko numéro mbër yi nga yor yëpp laa soxla jox ko kaye mu bindal la numéro téléphone mbërëm yëpp nga woo Abdoulaye Ndiaye noonu nga war pay baabu ñoom munoo dajale 8000 licences yi woo leen dajale ñëpp biir arène nationale wax leen lan mooy problème bi ne leen lii ma fi gis nii jëmul kër te ñun war nañoo mën a commencé suñu taxaw suñu bopp balaa dara xew ni ñuy taxaw suñu bopp nag mooy dañoo bëgg ñun ak suñuy rakk ak ñëpp chaque weer mbër bu ne biir loolu noonu di nga dem xool benn mobile nga xam ne kii làmb du ci am dara association bi dajale seen somme aal ko 8000 licences chaque weer 1000 la ci feebaru booy Malika boobee am na keneen ku nekk sunu confrère ñu gën koo xam ci pël bu rafet nekk foofee ca Bawol TV doon ci jëf ay jëf yu mucc ayib taxoon mu demoon foofee ca ministère de la euh, ca ministère des sports fas yéene sàkku ndimbal ci ginnaaw bi ko Matar Ba wooloo foofee waaye ba mu fa demee naqar la fa jëlee dañuy dem déglu ji ko moom pël bu rafet ba xam naqaram boobee naka la demee. seeti ji Matar Ba mooy bi muy recevoir affaire làmb ji noonu buur géwél mu ngi toog. maa ngi toog Fatma Dia ngi toog Pa Maguette Sénégal mu ngi toog Père Gaston mu ngi toog lu amul seede neexul ba ñu waxee ba pare ma ne ko euh, dañ lay ñaan en tant que papa en tant que nijaay en tant que mag ñaanuñ la en tant que ministre dañ lay ñaan en tant que jullit ak moromam. dafa am suñu benn booy boo xamante ne ma ne ko man sama doom la sama xarit la dafa am ndog-ndog bu ko dal ci ko weeru koor bi la woon. balu fetel lañ ko tiire te xam nga ku ne xam na ne balu fetel xajut ci nit te yow sa bët bu ci dara duggee sa fekk génn doo am jàmm ma ne ko nag léegi euh, dem na faju mais fan nee nañ kii nii amat ñoom daal munuñ munuñoo jël ay seen responsabilité dañ ko see dégager ndax munuñ ko opérer léegi foog booy bi génn wala ñu xoolal ko fu baax fu fu mun a fajoo ñu opérer ko ndax risque la xam nga fu fan demee ba ne mun jël risque yooyu kon lu garaaw la mu ne ma ndax dossier yi yor na ko ma ne ko waaw mu ne ma danga may indil dossier yi wallaahi azim dama waxantu yàlla moo ma tiim. moo ministre bi. mu ne ma naa ko indil kayit yi ma yóbbu kayit jour boobu vendredi la woon vendredi boobu noonu yaakaar naa ñun ñëpp ñu ngi fa woon après léegi ba mu ñibbee lënd bi lañ doon daral dalal Bira Sène mardi mercredi laa dem yóbbu dossier yi bi ma ko yóbboo 10 heures si suba laa fa dem ba 16 heures et demi maa ngi fa toog. directeur cabinet bi secrétaire bi sax moo ma doon wax xaaral xaaral affaire ba mujj gi mu ne ma kii la la booleel directeur cabinet bi ma ñëw dugg directeur cabinet bi ne ma yaay seet ministre bi mu ne ko waaw mu ne ma lan la woon ma ne ko lan la woon kay xam nga ko xanaa ma leeral ma ne ko dañ fi ñëwoon laa foo passée ma expliquer ko ne ko dafa am suñu benn booy boo xam ne dañ ko tiire balu fetel mu ne ma woon naa ko indil dossier yi moo tax ma ñëw fi tey indil ko dossier yi mu ne ma noonoo moom amul droit téye yi ma a ko mais moom moom wax ma indi dossier ma ne ko man aw ma di ñëw fii di toog di indi ay dossiers yoo xam ne kenn laaju ma ko aw ma intérêt di dem di fëgg benn bureau aw ma dara nag waaye am naa sama ngor sama ngor man am naa ko te xam naa man maay kan yaa ngi dégg parce que boo neexul dara da moytu yu bëree bëri ndax man bugguma ko ma gàntu loolu moo tax yu bëri jiili du ma ci dugg. mu ngi noonu mbokk yi ñoo ko déggandoo ca ndaje moomee it Pape Sarr profité na ci liggéey bi nga xam ne nii mobile 2 mu ngi koy liggéey ci Pikine jàppale gi muy jàppale ñi nekk ci tolof tolof te seen loxo jotul seen ginnaaw moom mobile 2 moomee la Pape Sarr xam le ne désormais mbëru Pikine dootul bëreeteeg moom muy déclaration boo xamante ne nii déclaration bu officielle la wala déet en tout cas li ci kanam rawuli bët dañuy déglu ji Pape Sarr ci li kebe. du ko gërëm mobile moom dama koy wax kon ma joxee micro dama koy bàyyi ak yàlla man moo xam lu mu bëgg lépp lépp lu mu bëgg yàlla na ko yàlla defal te nit ku baax la billaahi wallaahi heure boo ko woowee heure boo ko woowee ñun ànd nañu fee mu wàccee ma si centre commercial bu bees bi billaahi ñu koy jox dix mille pour mu def ci otom essence mu sànni ñu ko mu ngi nii billaahi li muy def nii billaahi wallaahi tallaahi ci kanam la jëm billaahi te man de man Pape maa ngi fii li des sama dund man man nekk fii rek soog mobil bii dootul bëreeg mbaru Pikine billaahi wallaahi loolu suñu ngor sax mayuñu ko ñun bokk ñun waa Pikine suñu ngor mayatuñu soog mobil bii di di laaleeg mbaru Pikine billaahi wallaahi non déggoo suñu ngor laalo ñu jël roi bi may ko ko ñun nangu roi bi ci mbaru Pikine jox ko ko non non daa am daa déedéet yàqu làmb de dafa am lu ñu ji laa la wax nii dama ne ñëpp mbër yëpp nañu xool nit mobile bii ni muy def nii. billaay wallaay talaay maa ngi koy conseil mbëri yëpp nañu xool kii ni muy lii nii. tey suñu génnee cadre làmb xam nga ñun ñëpp ñoo bokk ndey ñun ñoo bokk baay. loolee mbokk yi mooy ndar kàpp xibaar yi bokkoon ci li ñu leen indi loon tey conférence de presse bi soq doon amal foofee ci centre socioculturel ba am ba nekk ca Pikine te mu dajale fa presse bi doon waxtaan ak ñoom ci jëf ji nga xam ne def nañu ko daal di koy bindal ak jàpp goo xam ne jàpp nañ ko police ba defeere ko dara amu ci loolee nag la doon leeral naka noone it fa la ñu jaar defaale beneen waxtaan fa séenee jàppale mbër mii di Boy Malika ci feebaram boobee nga xam ne feebar bu metti la ñu ciy woowaale autorité yeeg am di jàmm yépp képp koo xam ne mën ngaa jàpp fenn ba mu delluwaat ci anteem loolee nag mooy seeni i kàddu ñoom euh, ñi nga xam ne ñoo fa tase woon ku ci mel ni soq ku ci mel ni mobile 2 ak ku ci mel ni Pape Sarr foofee aussi ca la ñu fekk ki nga xam ne moom mooy pël bu rafet ci leeral yi mu doon leeral ci la mu jële woon foofe ca ministère euh, des sports ci ndaje mi nga xam ne nii waroon na ko amal ak euh, ministre des sports Matar Ba ginnaaw bi mu sàkk woon ci moom ngir mu jàppale ki nga xam ne moom mooy Boy Malika foofee it Pape Sarr fekk nañu ko fa mu def déclaration boo xam ne nii dox na diggante mbëru Pikine yi ak mobile 2 làmb dootu doxati seen diggante kenn ci ay kàddu yu Pape mbokk yi lii moo nekkoon li gënoon a fës wala li ñu leen indiloon tey ci xibaari làmb ji ñu koy jaajëfal bu baax a baax ku ci mel ni jii Jili Kébé reporter bi wàccun si le terrain di jaajëfal Ousin Adama ak euh, kàggu cant ak ngërëm ñeel na leen mbokk dañuy dem ak yéen ci revue de bi tàggoo jaar foofu joxante ak yéen dig daje ba ëllëg incha allah ci yeneen i xibaar jël ngeen jëf taraax la ñuy def ci xew-xewu làmb tey fekk journal ba indil ñu ab jàngat bu yaatu ci saison bii ñu génn saison 2019 2020 saison bu corona la journal bi xamle saison bu ñu tàmbali te yeggut moom la gis ci bile journal saison boo xam ne corona bi jël na wàllam weeru koor bi jël wàllam saison ba jeex taat ci saison boobee ñu génn nag la journal ba xamle mooy cinq mois toog nañu ko bëreewunu ñu dëgmalaat beneen saison boo xam ne saison bu nar a bëri jiixi jaaxa la corona baa ngi fi installé wu kenn xamagut la ñuy reprendre bile saison bile làmb daal jaarale lamb ji mooy tëjëkka tijji te kenn xamul kañ la koy tijjiwaat ci mois de mars la ko ne rappte refi bëri ñu doon dunde yaakaar weeru koor bi dugg ci avril ak mai ñu jóge ca ku nekk di xalaat saison bu tijji corona bi ne ràpp bunt bi tawoo bi saison 2019 bi moom corona bi da koo yàq ba mu neexet 2020 moo fi desete le journal ba xamle mooy juróomi weer képp moo ci des bi lépp moom it juróomi weer képp a ca des combat royal ba nu jàppoon ci lamb mere nan ko ba fa mere yem ka mer ba futt tey wane meram ci journal sunu lamb mooy Père Omès zappe ko ministre Matar Ba zappe ci consultation yi mu doon amal wane na am naqaram ci sunu lamb moom la mu xamle mooy personne ne peut faire la lutte sans amul kenn ku mën a wax lamb ci réew mi te tuddoo ma ci ku ma génne ci lamb réew mi da ngaa def lu la neex on m'a kenn fàttalikuwuma loolee mooy ay kàddum ci journal ba waaye la mu jàpp te gëm ko mooy lamb mooy wax lamb ci réew mi faaw wax lamb te tuddoo nga wax bu nu jàllee ca Gris Bordeaux mooy mu ngi tegale troisième année blanche am te li ko waral du leen mbas mi gannaaw saison 2018 2019 mu teg ci 2019 2020 bëreewul 2020 2021 moo ci waaje topp ndax juróomi a ci des li na saison blanche naka la numéro 1 mi fi génnoon bërki démb di wax ci digganteem ak mbay guy gi mbay guy gi xëy na ci sunu làmb ba tontu ko moom la mu xam le mooy sama wax dootu ci bari Mame Balla numéro 1 xam na ne maa ko ëpp doole maa ko dàq xeex maa ko dàq bëre ma ne ko nuus jàpp ko moo tee làmb ji jeex te bu arbitre sifflé danaa ko yóot ba jàpp ko jeex neexal làmb ji moom Mame Balla bu Pikine lu muy jaay bu yeboo xam ne maa ko foofu samay supporter dama bëgg seen xel dal te xam ne Mame Balla nga laxndiku bu ñu jàllee ci écurie Parcelles mbooloo la journal ba xam ne mooy bëri nañ espoir yoo xam ne nii yaakaar nañu ci ñoom ngir ñu téye ji làmb ji ku wax espoir u mbooloo faaw nga wax ñett ñi Elton Senior Ondinga ak Farbou Diar yile gone Parcelles mbooloo misé na ci ñoom te am na yaakaar ci ñoom li ñuy xaar ci ñoom